dalee nag jàmm mbokk internet yi ba wuré wa demee këng ba léegi ñaari mbër yiy dëkk ci di léwatoo waaye kenn xamagul ci ñoom ñaar ana kan mooy daan ba mën a nekk njiitalu kuréelu cantaakun yi ñi ànd ak kii ña ca des sa fare kële diggante sëriñ saaliw cuun gël tàppe doomu sëriñ cheikh becco cuun ma woon ak soxna ayda jàllo jëwriñ universel nekkoon na soxnaab sëriñ cheikh becco cuun na lay doy na waar sëriñ saaliw cuun bàkku na yëkkati ay loxoom jox boppam jàpp ne moom moo daan ci ginnaaw si nga xamante ne jot na amal ab cant lu rëy fële ca buun moom taw sëriñ Cheikh Béthio cuun ba taxaw tembe rek wax ne moom moo am ndam wane ne mbir mi moo ko yor waaye ca jamono jooju soxna Aïda Diallo wane ci dooleem ca si Sicap Foire bu Dakar ba suba 14 février di Saint-Valentin nekk ci yile di cantaakun wala sax ay aydakun bés bi nga xamante ne ci la ñuy màggal kàddu yooyu yile nga xamante ne borom këram bu woon di sëriñ Cheikh Béthio Thioune moo ko ko waxoon naan ko yaay man may yow soxna Aida Diallo ci boobu lépp bés li ko wuyu ci ay ay doomu aadama dafa baree baree bari ba foo sànni mbartu mu toj tey bu doon jongante mbërum làmb dinañ mën a wax ne am na ci ñoom ñaar kenn koo xam ne dafa def carte appui wala sax ngembam laal suuf tey jii kenn umpalewul la xilaafa ak Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée daanaka dëgërul te li ko waral mooy taxawaayu jëwriñ universel bi di soxna Aida jàlloo ak ay wu jëm woon ku ci mel ni Adja Saliou ak soxna Batoor ba fi Serigne Cheikh Béthio Thioune ba léegi faqar ñaar ñaari pàcc yi lee kenn ku ci nekk di xëcc jëmale ca booram ñun nemmeeku ci média yi bataille de communication maanaam bu jongante ci diggante ñaar ñi ku nekk jàpp ne moom moo yeyoo jiite kuréel yi cantaakoon yi ba tax ku nekk ci sa boor yaa ngi fexe saay su ne gën a jege xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké ak sax yenn ci ay borom dayoo ngir rek mën a gën a dëgëral sa taxawaay ci ay bés yi ñu weesu soxna Aïda Diallo jot na ab ziar goo xamante ne gise na ci ak sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de mourides amal ko foofu fu ca Poroxaan nangul ko ziaram tegal ko ci ay ñaan yu am solo ka ko ci jàppale woon di benn ci bëkku néegu sëriñ bi di wuyoo ci turu sëriñ Modou moom mii jàpp ne lépp lu jot a xew ci diggante soxna dee lépp ay complot la maanaam ay sos ki complot yoo xamante ne yenn ci jege ñaale sëriñ bi ñoom ñoo ko def ngir mën ko jaxasee ak xalif général des mourides waaye ba tey loolu lee am na ñu mu neexuloo ndax kenn ci rakkub mbàkke mbàkke boobu moom mi ngi wax ne loolu du yoon ndax jàppate ne kenn warta yombalal kii la di soxna Aïda Diallo gisee ma ak sëriñ Muntaxa Mbàkke ndax dafa jàpp ne soxna Aïda Diallo ba fi mu toll nii nanguwul jëfee ndigalu boobule xali xalif nanguwul jëfee ndigalu boobule xalif ba tey ca ga sëriñ Saliou Thioune Gueule Tapée moom mi ngi xam la ne moom it ku jege xalif bi la ndax mi ngi fësal ne xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke jot na ko woo téléphone ca waxtu wa nga xamante ne mu nga nekkoon a fële ca Aix-en-Provence doon fa amal ab tournée di seeti cantakun ya nekke foofu laaj bi samp jamono ji te jotoon na samp ci lu yàgg mooy ana fan la mbir mi di mujjee ana kan mooy mujjee daan ci bile combat kan mooy mujjee doona njiital cantakun yi ba tey ñu xoolte seetaan ndax wolof njaay nee na lu ci kanama raw li bët ngeen jëf